Bienvenue sur Salam Vision. Salam Vision laa leen jàmm ju ànd ak vision fa sori waaw mooy Salam Vision yéen ñi xamante ni yéen a koy seetaan dama lay diggal nga teel a gën gaaw abonné ci Salam Vision. ودمرا كل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 ñoo ngi nuyu askanu Sénégal góor ak jigéen ndaw kenn ku ci nekk foo mën a nekk rek ñoo ngi la fay fekk di la jox jàpp suñu loxo di la nuyu nuyu bi nga xamante ni moo gën a ñëw ci diggante jullit ak ne ci lañ moom lañ dëgg jeexal bërki démb ba njaay wax bi nga xamante ne mooy bésu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu yaakaaru jaam ñi ñun ñi nga xamante ne nag ñooy lenn ci njaboot gi nga xamante ne ñoo féete fii ci kër Alaaji Serigne Cheikh Oumy Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal ñu koy ñaanal bu baax a baax sama borom yàggal ko te may ko wér ba naa la liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul maamam ak Serigne ko sago ak fekkee mu yeggale ko ci dara yonent yàlla Muhammad alayhi gi di sunu yaay soxna Aju Fay ñu bëggoon waxtaan ak moom weccoonte ak moom lenn ci ay kàddu gannaaw bi ñu jégaloo coono yi nga xamante ni wax dëgg yàlla jànkonte na ko ci bis bi nga xamante ni romb na bërki ngi lay nuyu di la ziare waaye di la dalalaat bu baax a baax macha allah ci biir jotaay bi. maa ngi di leen nuyu di leen ziar di leen sant di leen gërëm di nuyu Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Mountakha Mbacké Bassirou di nuyu Serigne Abou Mbacké Fallilou ñu sunu bunt ci kër Serigne Fallou di ziar Serigne Cheikh di ñaan yàlla yàggal ko te wëral ko te bu yàggee yàlla na suñu borom dëgëral ko. ko yàlla mosul ko ci bés ndox ci barke Seexul Xadiim ba lépp mu yéenee liggéey maamam bi Xaadimu Rasuul mu liggéey lu fonk njortam ndax taxawaayam mate na ko bëgg Sëriñ Tuubaa mate na ko bëgg Sëñ Fallu mate na ko yàlla na ko ay koy ñaanal jërëjëf yaa aji ci nuyoo bu am solo boobu macha allah ak ñaan gi tam ñu ñaan yàlla sama borom def ci dégg ak topp ñu gis xat-xat yi coono yi nga xam ne jànkonte ngeen ko ci bis bi nga xamante ni loolu mën na dëgg yàlla gannaaw ñaan yi naka naka naka naka ngeen dundee bis bi ak taxawaay yi nga xamante ni jot ngeen ko ci ndax gis nañ nga taxawee ci taxawaay bu am solo boo xam ne naka jekk euh, loo daan def la waaye tam ñu gis ni da mi ngi gën di jëm kanam mel ni day daal di dëppoo ak li nga xam ne ñu ngi koy wax ni maanaam tànki kanam te yoonu murid moom tànki kanam rek la am daal amul tànki ginnaaw nu gis ni euh, wàccaay bi nga xam ne di gën di yokk di gën di kawe di gën di jëm kam macha allah rabbi. loolu de dañ ciy sant rek ndax jàmbaar amul kuñ dimbalee am sëriñ bi rek moo ñuy mën a dimbali jàpp suñuy tànk suñu bëggee mu am ñun mënuluñ suñu bopp dara xamuñu dara doonuñu dara te duñ mës a doon dara ci kanamam waaye nag ak bëggam toujours li nga xam ne bëgg. suñ ko bëggee ñun itam suñ borom da ci jàpp ndax ndigal lay àndal loolu tamit dañuy defe ne heure buñ ko jubloo def te Serigne Touba tax tam jóge suñuy xol danañ ci am lu koy seen jor ñu tàmbali ko nag ba naga luñ ci foog rek lu ko gën a yéeme la gis kon Serigne Touba moom kenn la kenn du sant kenn ku dul Serigne Touba ndax liggéeyam bi daal ba koy liggéey wéet na ci lool waaye tey nag bi mu neexee ñun ñu ñoo ko bànneexoo kon nag dañ koy sant bu baax di ñaan suñu boroom dolli ko ay leer bu baax a baax a baax a liggéey na liggéey boo xamante ni boo génnee euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënoo teg keneen ku du sëñ Tuubaa kon nag ndox biñ ci yàlla boolee bu ñu feeñoon feneen rek danañu metti kon ndox biñ feeñee ci moom sant nañ ko bu baax a baax a baax a waaye ñu gis ne wax dëgg yàlla euh, euh, euh, liggéey bi rëy na kawe na lool ñu gis ni tamit wax dëgg yàlla tudd nga ci ay ay ay ay doomu ay mbokk ci lenn ci ay mbokku taalibe waaye itam lenn tam ci njaboot gi nga xam ne dañoo nekk ci biir kër gi ci jàppale ñoo yaatal googu ubbiku googu noonu ak boo yëpp ko fi mu toll nii lu waral loolu fi mu toll a waaye. xanaa xam boo ko xamee doo xatal ndaxte yàlla moom mooy buur. te noppi na yàlla noppi na du effacé waat dara te du bindaat dara kon nag ñun ñu fi ne ñooy dem ak suñuy xel la njaboot gi nag dama bokk ak ñoom biir kër gi bëgg di dox ci bëgg-bëggu sëriñ bi sama diggante ak ñoom mooy waral lu ma kàddu yu ma jëral di ci jiital seen sant mënoo dem yow kese te rawatina dem sans njaboot gi mënta nekk moo tax nag ñi ci nekk ay mag maanaam danga koy dalee ci Baye Galas sëñ Modou ba ci tey sama ñetti tuut tànk yi nga xam ne xale yi sax dañ naan tuut tànk temps aji fay kon loolu dama koy sante yàlla ndax am na loo xam ne moom yàlla def na ko sama digganteeg ñoom li ñu doon doon ay xale kon loolu dama ciy sant yàlla bu baax ndax donte maase nañoo ki ma fi yàlla may muy bàyyi laat waaye am nañ tamit cofeel ci man ba ma yëpp loolu tamit dama ciy sant yàlla baax di sant tamit seeni mag yi leen jiitu ci sëriñ bi suñu ci sant may si ma neefandoo ci biir kër gi ndax bu dee ñuy jógee Dakar ñoo di may jàppale buñ fekkul woon ci kër gi di jàpp ñoom duñ am bunt pour jàpp kon nag lépp ci kër gi la borom kër gi moom bëgg-bëggam mooy njaboot gu ànd yàlla na ko yàlla defal leneen li ci dolleeku nag mooy la tànk moom mi ngi bëgg ñun dañuy def te heure bu ñu defee suñu borom dana ki def jàmm ndax yàlla xol lay fay te xolam fu mu jar yàlla fay ko ko suñ seexu mi moom xolam kenn amu ko ci ci bëgg njaboot di sant tamit nag jëwriñ yi nga xam ne yàlla dakaa booleen ñoom muy jëwriñ As Diouf jëwriñ Omar Gueye euh, soxna Daba Sarr jiite jigéen ñi soo demee Europe sëriñ dooy fay kenn mënu ko daf maa jege nag ba mënuma koo sant waaye dinaa ko sant ci jëfam ban koo sant ci jege di sant soxna Xadi Njaay ca Espagne jigéen la waaye góor la taxawee ci kanamu sëriñ bi di sant sëriñ Dan Thiam ca Guinée kooku du taalibe doom la ñu nekk ay nit ñoo xam ne nag bis bu sëriñ bi yëkkati kenn mënu leen ci il faut ñu leen di citer seen i tur di leen ñaanal di leen ñaax di bëgguñu gën a yokk seen góorgóorlu ak di sant baay Fall yëpp nag di ci yow mi ndax lii nga def xam nga ne fii nga am moo waroon nga taxaw taxawaay bi Baye Fall yi ci kër gi tamit nag bâtiment boo fi gis ñu taxaw ñoo ko taxawal yamuñu ci màggal si yamuñu ci sikkar loo fi gis mu taxaw ñoo ko taxawal lu fi ne ñoo ko fi def ay jàmbaar lañ yal leen yàlla fay yal leen yàlla fay ba li ñuy séntu ki sëñ Cheikh Oumy ba bàyyi seen ndey bàyyi seen baay di ko topp ci moom yal na leen ko yàlla defal muy Baye Fall yi ànd ak moom liggéey ak Serigne Touba beeg liggéey Serigne Fall bi boobu bu gëstoo na leen gis ci ginnaawam yàlla bu ñu amati benn ndok te yàlla bu ci kenn manqué ti nag ay jàmbaar lañ yàlla leen seen jëf wàll maa koy ñaanal Baye Fall yi ñu sonn leen ci yi maa ngi leen ñaanal bu baax a baax wax dëgg yàlla. jërëjëf soxna yaa aji mu mel ni kaddu yi am na solo te ku dégg ni nga wax ne wax dëgg yàlla kaddu yi fa mu jógee moom solo na fa lool te mate na fi tam sama borom bàyyi la fi ba ca kanam a kanam nga gunge ñu ci liggéey bi daa nee naa moom fi wax yàlla li olof di wax naan euh, feccub liir bu neex jàpp ca wagg ya te gannaaw ndey nga tamate nga itam noo ngi lool yow itam ma ànd sëriñ bi fi mu ne ànd ak kook njaboot gi itam ci daraje yonte yàlla Muhammad lan mooy doon kàddu yu mujj yi ak message bi nga xamante ni tey jii duñ ko lancé mboolem njaboot bi nga xam ne njabootoo nañ ci biir kër sëñ bi euh, nga xam ne yëpp yaa leen boole yaa leen euh, njaboot gi nga xam ne dañoo nekk ci kër gi nekk ci keppaaru sëñ bi di ay dongo di ay soxna yu jigéen yàlla def jàmm seen diggante yàlla tàppe seeni xol ñu ànd ba mën a liggéeyal sëriñ bi ñuy ñaan magal yi ñu dëlmal muy bu déwén yàlla bu ci kenn manqué yàlla bu kenn manqué la li ñu màggalu 2022 gii 2023 yàlla na ko gàccaayal ci barke Seexul Xaddim di ñaan nag loo xamante nii ci suñuy xol lañ koy tibbee ci suñuy xol lañ koy tibbe muy njaboot gi topp ci ginnaawam yàlla boo xamante ne ni rek gis nañ dara luñ ragal lépp luñ bëgg seen àddina yàlla na leen ko yàlla defal di sant tamit Cheikh Malick seen ak soxnaam Aïda Gueye ndaxte ñu jàpp ci kër gi lañ grand théâtre bàyyiwuñ dara Cheikh Malick sax taalibe bu wàññeeku sax moom jàpp na ne moo la war a saraxal kon ñu koy sant bu baax a baax di ñaan tamit fee mu nekk la wuti mu gaaw for ko ba daw ñëw wàccaat ci biir dëkk bi ndax soxla nañ ko te namm nañ ko te bëgg nañ ko ci keppaaru sëriñ bi ñu ko fi xaar yàlla na ko yàlla delloo si ci njabootam ci barke Seexul Xaddim di leen sant yow ak sa mbokku taalibe yi nga àndal ndaxte yow sa kër nga ñëw ñoom bu ñu ñëwee mënoon nañoo xool bisu dem wala bisu wàññeeku waaye danga dañoo toog rek di lay déglu soo ne woon dañuy xaar gàmmu tamit ñu topp la ci loolu ndax xam nañ sëg bëgg ci nga nekk ñu fekk si la seen bëgg ñoom tamit ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan ñu dem ba am seen télé bopp comme ni ko ñëpp amee ñaan dem ba am leneen lu dul ay site di koy doxal ci réew mi ci njab ci Serigne Touba njabootu diine pour l'islam woote ñu mën faa teew seen ndaw di fa teew te jëm ci jàmm de ñeeku ci jàmm yàlla nañ ko yàlla defal ci barke Seexu Xadim delluwaat nag di ñaanal na yàlla may ko fan wu gudd ak wér yal na yàlla lafal ko cat yal na yàlla sàmm ko te sàmmal ko yal na yàlla sàmm ko te sàmmal ko sëriñ Seexu mi kenn mënu koo fay yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla may fan wu gudd te musal ko ci lépp luy ndogaale nag luy ndog ku dëlmal lu baax lépp lu koy dogaale yal na sëriñ lu baayam ba ak sëriñ Tuubaa maamam ja féewale koog moom ci barkeb maam Seex Ibra Fall loolu nag laay tëjee samay kàddu waaw maa ngi leen di sant di xanaa duñ ci teg dara da ngeen daan rek xanaa kon yaa ji yow dundal alaaji Cheikh mi Mbacke moom suñu fàllu dund mboolem njaboot gi tamit ñu yàgg fi loolu te ànd ak wér rek ba déwén na ci incha allahu ndax nee naa yi nga wax ni moom leneen luñ ci teg rek dañ koy daal di yàq kon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yaa moon ci góor ñi falu yaa ji tugaa liggéey jumaa gi Mbacke jébal ko réew nala jalaala nala jamaa